muy baat bi nga xam ne moom la yàlla tànn di ko ubbee ay kàddoom muy bismillaahi rahmaani rahiim na yàlla barkeelal na ci sunuy kàddu barkeelal na ci sunu jataay bi barkeel leen barkeel njaboot gi barkeel sunu dund barkeel sunug dee ak bés dekki ba li isaa ne wasalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ubasu hayyan ki ka waxoon a ngi daana wax ne may buntab limaamu ku bëgg egg ci limaamu te jaaroo ci man doo egg ci limaamu yonent bi waxoon ne inna isa ibnu maryam lam yamut wa innahu raajiun ilaykum qabla yowm alqiyaamati na xam ne isa deewul te dina dellu sa si yéen balaa bés pénc yàlla ne wa innahu la ilmun li saati fala tamtarunna biha loolu la yàlla wa il sera un signe au sujet de l'heure n'en doutez point kooku mooy kii ginnaaw bi nga xamee ne ne ubbee nañu suturu yàlla nga xam ne lii fi am do yàlla يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب di muslu ci seytaane yàqkat boobu kon ku fi teew yàlla musal na la ba nga bañ ba nga man fee teew ndax iblis day bu sañoon kenn du uyu ooteeb yàlla ak ab yonentam di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi doon na yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sant yàlla bu baax ne woon naka ida jaa nasrullahi walfat wa raayta annaasa yadxuluuna fi diini illahi afwaaja mu nekk fa sabbih bihamdi rabbik wastax فاستغفره إنه كان توابا fanaa ndimbalal yàlla loolu ñëw na nu fas yéenee wax ci kàddu kii nga xam ne moom la fi yàlla teg tey muy Seydina Muhammadul Maxtaar ibnu Seydina Mandione bàyyi laay amati na ndam summa sadaqnaahum alwaada fa anjaynaahum wa man nasha wa ahlakna almusrifin yàlla dafa jëkk wax ne wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina almursalin innahum lahum almansurun wa inna jundana lahum alxaalibun mu ne jox naa samay kàddu maanaam wax naa ko ba pare xam nga di dim ni tey am kàddu mas sama ak yàlla innahu ala kulli shay'in qadir yàlla téléwul dara mu ne sama kàddu nag jox naa sama jaam yooyu nga xam ne maa leen yoon ni yónni dinañu am sama ndimbal wa inna jundana lahumul ghalibun dafa naa bàyyi lay lii mu am day ndimbalal yàlla la in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in waa bu yàlla dimbalewul Seydina Limaamu kan moo ko dimbali xalifa bu tedd bi nga xam ne moo fi toog bii mooy appelam bu jëkk ginnaaw bi fi Seydina Abdullahi mi nga xam ne maama ma ko ay baayam ñaanal ka ay magam óolu ko di doxal li wan yoon wi ba mu agsi fii mu dem uyu ji maamam fa mu dëdd ca illa yéen di ñaan yàlla yàlla yàlla taas ni ci barkeem yàlla dogal ci dogalam yi mu ne la ma diggoon sama yeneen dëggal naa ko muccal leen ak suma saw summa sana'naahumul wa'da fa anjaynaahu wa man nasha seydina isaa nga ca wa man nasha seydina manjoona nga ca wa man nasha seydina isaa mu seydina manjoon doon xalifa bi jëkk toog dib sët ci seydina limaam nu ngi koy fàttaliku ndax lii ñuy wax appel ca centenaire ba mu tommeeg toogaaya Baye Seydi caw di xalu sëtam bi jëkk a toog ci xilaafam ca la amal xew-xew bi léegi nag ñu ngi ci cent quarante deuxième anniversaire de l'appel de Seydina Limam Wolof nee na lu dul dëgg du yàgg ma ne awaaye lay lu fi yàgg xanaa kon dëgg lay am na ndimbal maa kaana lanaa an naatiikum bi sultaanin illaa bi idnillah yonente yi yàlla da leen booleen ndimbalam jox leen ay mucjisa yoo xam ne mu ngi fàttali jaam yàlla yi moom mi yàlla dogal mu toog tey ci xilaafa maamam ne oote bii du puukare oote bii oote diine la yaa ayyuha amanu istajibu lillahi wa li rasuli ida daakum lima yuxyikum la yàlla wa bàyyi laay lan la wax ajibu daai yàlla yaa maxshara al insi wal jinni inni rasulullah ilaykum ba bàyyi laay woote mooy i yàllaay mooy baat ba bàyyi laay woote mooy ajibu laay moom la yónneen waayoon waa Makka ak waa lu saay la ilaha illa Allah du fàttali nit ñi ne yàlla dafa waxoon maamam dem wa iza saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani fal yastajibu lii def ngeen ko wal yuminu bi laallahum yarshudun ataa subli xam te seetaatal bu baax kaa yi nan seetaat subli yow xam te seetaatal bu baax waaye ndax ñu xam kenn moo di woon di yital ay la ilaha illa la ilaha illa la sama jaam yi buñ la laajee ci man nee leen ku jege la képp ku ma ñaanit dinaa nangu sa ñaan waaye nag fal yastajibu lii moo tax képp ku fi teew loo fi ñaan yal na yàlla nangu ah, way baay ak si lisaan boole ko xéewal ya jëm yawmal qiyaama la ilaha illa la ilaha illa la falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun nañu ma uyu te nañu ma gëm defe naa képp ku fi ñëw gëm nga ne yàlla kenn la gëm nga ne lépp lu fi am sama boroom a ko dogal loo maa fi samaawaati wa maa fi ard yàlla moom li diggante asamaan ak suuf lépp yàllaa ko moom li mu naan képp koo xam ne nanguwoo sama dogal bul dox ci sama suuf ba ba te itam bu la sama asamaan tiim kan moo am jeneen suuf ju dul ju yàlla joo mën a dox ak sa tànk yi baa nga dawal sa oto ba am yow ko yéegee mu ne bu dee da nga yaakaar ne am ngay pexe ba doxoo ci sama suuf foo dem sama asamaan tiim la nga yeeg fusée planète boo mën a wàcc asamaan yàlla ngi la tiim ku gëmul samay dogal boo dox ci sama kaw suuf bu la sama asamaan tiim ane kan moo man loolu seen yi du leen mën yu isaak ma njool seen yi du leen mën yu isaak ma njool laay leen miir la ilaha illa la nee na maamam dafa waxoon ne ana xudratullahi man dogalu yàlla la maamam nee na man dogalu yàlla la la waaja na woon le hasard est sûrement le nom de Dieu ne veut pas signer loolu mooy qudra yàlla am na fulla ju toll ni allahu aalamu xaysu yasalu risalata yàlla fu muy def ak yonentam xam nag neex na nit ñi ak naqari na nit ñi yoonam nekk si waaye yonent bu mu yónni moo lay téye sa cummukaay waxoon na yenente bi la axasna minhu bilyamin summa la qataxna minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu haajizin xam nga yàlla ngi jiital ab atteem ci Seydina Limaam dafa xool yenente bi ba mu mu ne ko soo ma waxaloon lu tuut lu ma la wax loowul sama loxo ndijoor lay téye ci sa xol dog ko yàlla nee na bu ma buuree jëm si yow amul kenn koo xam ne man na sama diggante ak yow waa kon bàyyi lay mi ne yàlla ma yónni mën a démb mën a tey mooy kat ak am ma di muy fàttali ne la yàlla wax ca aayam ba ne wa qaala rajulun muminun min ali firawna yaktumu imaana ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad jaakum bilbayinaati min rabbikum wa in yaku kaadiban fa alayhi kasibu wa in yaku saadiqan yusibkum baadu allazi yaadukum inna allaha laa yahdi man huwa musrifun kazaab leen الشمس رانا man de bëggoon naa xam lu li maa mujjateeg yéen lan la li maa mujjateeg bu dee yàlla la sasal aaya ba dafa muy benn waay boo xam ne ci nitu firaw na la bokkoon gëmoon yàlla nag daan ko nëbb mu ne la waay yéen da bëgg a rey nit koo xam ne waxul lu dul yàlla mooy sama boroom ba pare wan leen ay firnde yuy dëggal wax jooju mu wax waaye yéen kaay leen ma jox leen xel waaye yéen yàqu kaasiban fa alayhi kathru mu ne yàlla moom wax ne moo ko yónni bu dee moom dafa sosal yàlla bu ëllëgee moom ci boppam mooy layoo sos woowa wa in yaku kaasiban fa alayhi kaasibu ngeen bàyyi xel bu baax ci aaya boobu yàlla kenn du ko fajal ndax li mu wax yonent bi képp koo xam ne sama borom buur na jëm ci yow nee na kenn mënul dox sama digganteeg yow kon limaamu bu ne mën a démb mën a tey sang bi nee na toog bi mu toog fii tey daf su toogal Seydina Isaa mi jëkk doon xalifab Seydina Limaam mu jëkk fa Seydina Mandione toog mi ko jur moom Seydina Muhammadul Maxtaar ibnu Seydina Mandione mooy caatu Seydina Mandione mi ñaareelu xalifa di Seydina Limaamu ba mu fa jógee Seydina Isaa mu Seydina Mandione ñëw moom laa leen wax moo ameel appel ba mu fa jógee Seydina Maam Alassane ñëw bi mu fa jógee Seydina Abdullahi ñëw bi mu fi jógee la Seydina Mouhamadul Makhtar ibnu Seydina Mandione ñëw yàlla na ko fi yàlla yàggal oyofal yan bi te may ko wér dëppaale ko ak ngërëmal yàlla ak yonent bi nee na yooyu nañu ci bàyyi xel ngir ñu bañ na rek waa laayeen ñu ngi xew déedéet dañuy màggal oote boo xam ne ki ko oote ba mu ko ootee borom dafa wax lii ma oote képp ku ko oote te yàlla yóndiw la ko ren ba déwén di nga tàkk jëbbat baa suuf lekk la moo ko jëkk waxal boppam mu ne lii ma oote cëy koo ko oote te yàlla oote loo la ren ba déwén di nga tàkk jëbbat baa suuf lekk la ba mu yàgg ñu ne waaw ndax amaana ba maadi yu ñëwagul am na ñoo xam ne lool lañu toog di ko xaar waaye benn tubaab yi seedeel ñu ne en Afrique noire les cas de mahdisme sont constants et nombreux on en signale au Nigeria comme en Afrique orientale en Guinée dite portugaise comme au Sénégal ndeke bàyyi laay am na ñoo fi fekkalante woon yàlla dafa bëggoon a dëggal ne moom mooy vrai bi ñoom ñëpp tey dee nañu sëy naa limaamu kase la ab ooteem sax ba ooteem egg ci téeméeri at ak ñeent fukki at ak ñaar يا معشر الإنس والجن سانغ بنانا رسول الله آية يم وحنا نكتب الجام يالله يؤيسي benn bi mooy bi ma ubbee uy leen oote bi yàlla ak yonentam uy si ngeen oote bi yàlla ak yonentam bàyyi laay waxul leneen du walliyu du xutbo dana inni rasulullahi ilaykum waxam dafa leer dellu ci gannaaw noonu yi sonn ka wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan mbokk yi jéem télé beneen bi mu ne min al mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira tubaab yi jéem ñoom ñëpp al ko lay des kon sunu toogee ba tey moo tax nee na jéggalul ma mbooloo mi si xaar bu yàgg bi waaye yoolab tafsir ndikke yal na leen ko yàlla defal tafsir ndikke dafa xaar limaamu li yàgg bi bàyyi lay ñëwee bi mu jébbaloo xam nga la ko wax mu ne ko limaamu a yàggu yoon bàyyi lay naka tafsir yaa mën a xaar mu ne ko budd kay soppalaku naa lu ne ngir di la xaar waaye limaamu yaa yàggu yoon mu ne man lañu ñu tudde woon almuntazar yonent bu ne defal nañ la bisaara waaye man kase la ñu askanale mooy ki ñuy xaar ku la di nga dara say may yaa jaran bàyyi lay ku la di nga dara yaa jaran sumaatahu mahdiyu moo ne xaadimu rasul moo wax de yàlla yal na nga julli ci mahdiyu salli bi taslimika yaa qawiyu ala allazi mahdiyu waa loolu ku ko sañ weddi mama laa wax ne wa awliyaullahi yadxuluuna zumratana bil wirdi yaaxuduuna xata al imaam al alami al mahdi fi aaxiri al azminati al maati waa ñun ci kan la ñu wéeru bay weddi bàyyi lay ci kan la ñuy ba ne maadi yu amul sëñ Tuubaa tudd ko bu julli ci moom ndax xam nga lu tax xam na ne Muhammad xam nga dafa wax ko ne wa nabiyu wa rasulu wal xalilu wal xabibu wal imaamu wa dalilu mooy tegtal ba. gaywati may laay bay. ka muy coow. gaywati may laay bay leen ka muy coow. dem di booru Makka. ak mu jëm dafay ñaaw. aw yoonu nii. ba pare yàlla defal ko ay mimar. Abdoulaye moo maasum nga l'islam du yaay général abi balaay du seen moo di sayfu l'islam moom xale bi ne nee maa ngi fàttali nit ñi ne leen ñun ñi gëm Baay Laay ak ñi mu jaboote day nun sant nañu yàlla ndax Baay Laay gàcceeluñu mu ne bokk na ci ndimbalal Seydina Limaamu mbooleem jullit ñi koy weddi ci dëkk bi kenn ko si ne am nga foo xam ne fa nga jokk mu ne waaye yàlla dimbali na ko ba kenn du ne ay bu fi limaamu fekkoon sama sëriñ ay bu sama sëriñ fekkoon limaamu bàyyi laay fi la fekk ñëpp bàyyi laay fi fekk ñëpp kenn ŋàññi ko ci ñoom kenn jógul xeex ka jógul it uti ndimbal feneen moo tax mu ne fii ma toog fi limaamu limaamu yoof mu ne du ma fekk kenn waaye ñëpp dinañ ma fekk si fii maam woote yàlla def fii bagaar fii maam bi xeewal ruuy ma bi jiiroo weddi say di soon ndax loolu wérul kan moo sañ ne rek sama sëriñ bu fi fekkoon limaam waaye yow mi gëm kooku nag ba pare di sukkas ndokk ci moom ne yaa ngi weddi limaamu foo ko teg fan nga teg bu dee sañ Touba julli na ci moom bu dee moom Alaaji Malik tegtal yi mu joxoon ca la tudde Maadiyu ne bu ñëwee mook mu mook moom ñuy dëppoo ci wirda wi laayeen yi lan la ñuy wirda salaatul faati wa awliyaullahi yadxuluuna zumratana bil wirdi yaaxuzuuna xam nga kon loolu honneuru tiijaan la xatta al imaam al mahdi fi aaxiri al azminati al mahdi ياسين سرقة الخياطي الإمام ياسين سرقة الخياطي بغر قدير في يمين خيراي سير سيد سر لا يعود لا يموم ثم قلم بالإسلام أنبياء جنرال في ملايك الناس مؤمن سليم الإسلام دي وانغنيرو ويردوي mu ne wàllu yu yàlla yépp dinañu jaar ci ngir mi dinañu jël sunu werda ba ci ki nga xam ne mooy ilimaan ju sewu ja ñu di ko wax mahdiyu mu ne fan lay feeñ ci aaxiru zaman mu ne mën de tegtal bi ma leen di jox mooy bu mu indee leneen lu dul wérdu tiijaan bàyyi leen ko te xam ne du moom bàyyi loo indi ba def téeméer minallaahi ilallah astaxfirullah al azim ba bàyyi laay def téeméer salaatul faatixa bàyyi laay def téeméer daal di leen fekk si téeméeri laa ilaha illallah kon waxu maam Alaaji Maalik dëppoo na ak Seydina Limaamu li mu andi loolu mu ngi ko ci yaakaaram cheikh moo tax ma ne yàlla defal na ndimbal bañ ñi mu fekkanteel ñëpp dañu ko ormaan ku ñu musaa na wax wax mbiru Seydina Limaamu nga ne ah bu ñëpp meloon ni moom de safara gent sang bi nee na damay fàttali faw ma fàttali man la yàlla dogal tey ndëppal urus li tegu ci sama bopp sama baay naa Isaa mi jëkk uutu sama maam am fanweeri at ak ñett moo nekk nii comme l'éclair en effet part du levant et brille jusqu'au couchant ainsi en sera-t-il de l'avènement du fils de l'homme l'homme waxul fils de Dieu où que soit le cadavre la se rassembleront les vautours waa ndakaaru mu ngi mel ni fu meen da tëdd mu ne sama tegtal bi ma leen di jox mooy fa may feeñ nee na nit ñi dinañu ko biiw nit tan yi di biiwe medd fu mu tëdd ndax dalul ndakaaru moo tax mu ne duma fekk kenn waaye ñëpp dinañ ma fekk si imaa ñu ñëw ngir gëm baa ñu njëw ngir xewlu si tey bu sañcoon ab dëkk feneen wala mu làqu ji feneen ñu ne da doon uti ndimbal rabbul mashriq wal maghribi laa ilaha illa wa fatahisu wakiila yàlla mi la yónni moo moom penku moo moom saw na nga si moom te ne amul beneen buur bu dul moom moo tax lu fi musa am rek lu fi musa am rek bàyyi lay tawakkaltu alallaahi wa kafa billaahi wakiila yow yaay loolu moo tax foog ngeen duñu xaar gaaf ak al muntazar jamono topp waaye naaj wi ngeen toog naaj wi ngeen toog yàlla na lakk jàngoro yi seen yaram bàkkaar yi seen yaram wéral leen muccal leen si ah, naaju safara ci barke yonente bi nga xam ne moo oote fi mu Seydina Limaamu Laay moom nee na nag beneen bi yàlla defal fi ko beneen sag ñu ne ban la mu ne mu def mujiza bu kenn weddiwul ñu ne lan la mu ne rëndal géej kan moo saña a weddi ne limaamu rëndal gi yonent yëpp alxuraan dañu nettali seen mujjiza ñu gëm waaye teguñ ci suñu bët wa is faraxnaa bikum albahra fa anjaynaakum wa man wa xaraqnaa aala firawna wa antum tanzuruun la yàlla wax ba muy xaral firawna géej ga nee na wa antum yéen ña ko yéen ña ko fekkoon rek tanzuruun yéen a ko doon gis waaye kéemaanu bay lay ba àddinay jukki xam nga lan moo tax kenn mënul weddi randal géeju Seydina Limaamu géej ba mu sës ngir randal na géej ba mu daj ngir randal na géej ba mu daj ngir randal na géej ba mu daj ngir randal na géej ba mu daj sa bakkar yali dafa waya yo kiramate sanga bi ne ngeen bàyyi xel ci lii ma leen wax kenn ku ne boo demee nga xalaat si te xam ne bàyyi laay bu dul woon moom wallaay waxtu wi duñu fi toog bi naan cent quarante deuxième anniversaire wala déet en Afrique noire les cas de mahadisme sont constants et nombreux sa jamonoy bàyyi lay a mbiru mahadi yu daal Afrique noire dafee bare bari waxtu wu ne rek am ku ne mahadi on a signal au Nigeria comme en Afrique orientale en Guinée dite portugaise comme au Sénégal mu boole ca maadu sunu maadu yi muy tey kenn xamul lu tax mu tudd limaamul Sénégal xam nga lan la yàlla bëggoon qul jaa alxaq wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqa ñoom ñëpp al ko nañ ba mu def maadu yi mu Sénégal nee na kookooy maamam sag boobu yàlla defal ko nee na moo tax mu ngi fàttali nit ñi ne bu ñu nee oote ba kenn newul appel nga fox uti feneen bu ñu nee màggal xel yëpp Tuubaa lay dem bu ñu nee gàmm xel yëpp dem Tiwaawan waaye bu ñu nee appel xel yëpp Yoof la jëm kon ñëpp nanguñ ne ña oote na keneen ootewul ko dul moom loolu gën a neex ci li dal bàyyi la ku ne mën ngaa oote lu la neex waaye aaji boo daa yàlla limaamul mahdi yu rek moo ko fi oote ginnaaw yonent ba mu ko ootee ca màggal wallazi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhu alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin wa axarina minhum lama yalxaqu bihim wal azizul xakim zalika nag fadlullahi yuutii man yasaa wala zul fadlin asim ngeen ne loolu yéen ñii la ko yàlla jox ndax ba muy wax yonent bi ne ba ma koy yónni te ña nga xam ne jànguñu waaye nag dina am ñeneen ñoo xam ne dina dajeeg ñoom moo tax boroom xam-xam yu bari nee nañu aaya boobu yàlla da ci dëxëñ ne yonent bi dañ dee dellu si wa axarina minhum lama yalxaqu bihim wa azizul hakim mu ne nag zalika nag loolu fadlullahi nga neen la yàlla yuuti iman yashaau wala zul fadlil aziz saga bi deen maa ngi leen di fàttali loolu ginnaaw bi ma leen fàttalee yéen ñi gëm fàttali ñu gëmul di laaj lu waral oote bi ngeen bàyyi xel ci aayaat yii ma leen fi man nag la sama bàyyi say naay saabu waxoon rek laay wax maa ngi leen di xamal ne sama bàyyi limaamu musul oote jëm ci boppam ne bàyyi lay ootewul jëm ci boppam da leen oowe jëme ci yàlla mu ne digalu leen lu dul ngeen jaamu yàlla te sellal ñun maxtaar nee na maa ngi tënku ci loolu man itam du ma leen diggal lu dul ngeen jàmm yàlla te sellal innama bu'ithtu li utammima makaarima al axlaaq ki mu ne moom la woon démb moom tey dane dañu ma yónni lu dul ma gën a teddal jikko yi laayeen nangul nan ka boo saagaa ñu ne ah, ma defe ne bu laayeen du saaga boo tuxee ñu ne waa ma defe ne laayeen du tux boo dégloo musique ñu ne ma defe ne laayeen du déglu musique ndax yéen yàlla rekk ngeen xam waa loo xam ne dafa jomb jullit yëpp ñu jombale ko yow kase la wa yonent bi wax ne afdalu ma qultu ana wa nabiyuuna min qabli laa ilaha illa nee na lu ma fi wax ñi ma jiitu li ñu fi wax la ci gën mooy kalimatu laa ilaha la waa bàyyi laay bu dul woon yonent bi yàlla ndax dina àntat baat boobu ndax baat la boo xam ne day lakka saytaane kalimatu laa ilaha illallah day kon ngeen bàyyi xel ci loolu nee na yéen taalib mu ngi leen di fàttali baat boobu ñun la koo xam ne nag dafa ñëw rek toog toogaayu baayam ñëw rek jàpp ak njàmburam toogul ba tey yàlla ko bind noonu moo tax ñu daan ko wax muhammadul maxtaar kumpag yàlla gi nee na ngeen bëggante ndax maamam dane uusikum an tajalu baynakum almahabba fa inna ahla wa yatahabun wala tajalu baynakum aladawata walbaxda antum kuntum ixwanan maa ngi leen di fàttali loolu ndax sama mag Baye Seydi Thiaw da daan wax ne ñu ñu jéppi waruñoo jéppindi maa ngi leen di fàttali bëggeel googu ngeen bëggante ko seen biir ndax maamam nee na waa ajjana dañuy bëggante ngeen rafetal jikko yi rafetal kàddu yi nee na itam sama maam dafa waxoon ne ku la dog ku la dab dog sa kurus foral say per te bu bañee ne doo for per yi nee na demal nga wuti geneen kurus kon bàyyi lay jàmm rekk la digle ba tëdd fi mu tëdd mu tëdd ka jàmmi yàlla jàmmalaay nee na mu ngi leen di dénk loolu ndax ma sa wax ne Mamadou Manakalaay mu ne ma xam nga lu war ki ñu jiite ci ki ko jiite ma ne ko waaw mu ne óolute sama bàyyi dem manjoon da daan wax bàyyi mu ne waaw imaam bu jullee ba pare ndax kenn ci ñun dina ñëw ne ko waaye imaam yàlla nangu na julli ji amul kenn ku koy def dangay ngay pare rek lam sa sijaade dem lan moo ko waral óolute ne loolu maa ngi leen koy dénk kon lay li wax bari na waaye ginnaaw bés bii la waroon a jëkk daje ak yéen mu ngi kiy feeñal ne ak xilaafa du ma tax a soppeeku ndax dafa am nu ma yàlla binde royuwaay la guddul ab tànk guddul làmmiñ kenn gisu ko fenn kenn neewul moo fi wax lii te jamono ji loolu donk ko yàq lu ne saw yoon nekk te la ngay wax dara du ci rafet waaye ku ne xam na ne royuwaay la bàyyi laay ne woon na jamono ju jamonoy gàtt làmmiñ gàttu làmmiñ la ndigum bëgg ngaa mucc moom de yàlla muccal na ko yàlla na nu yàlla muccal ci muccaam nee maa ngi leen di dénk yii ak lépp lu sama maam digle woon samay bàyyi ott ko samay mag ott ko ba mu agsi si man digalu ma leen leneen lu dul lool maa ngi leen di gërëm barama jamano doomi bàyyi ma njoon laay sanga denkay mat te nuru ko barke baay laay laa mat nga sanga borom jamano doomi bàyyi ma njoon laay li nga lu nekk nit ñi wax ko lu ne ñu lijjanti ko ah ñun de defoon nañ ne dina génn ci appel mu mel ni exigence mu ne déedéet man Mamadou Makhtar Ibn Seyna majon dama gëm ne sama mag ji Seyna Abdoulaye mu ngi dund ba léegi man loolu laa gëm ndax moo ma yar aw ma dara lu muy sopp ci li mu fi bàyyi woon ndax na moom la sama bàyyi wóolu naka daayira yu góor yeeg yu jigéen yaa ngoog diine jaa ngoog te la mu defoon lépp rafet na ndax man maxtar moo ma yar ca këram laa yaroo mu ne ba tey may leen ma ni damaa gëm ne sëñ Ablaye moo fi nekk ba tey sans commentaire waaw baayam dañ ko waxoon manjoon mi nu xàllal yoon wi ndax lan sëy naa Isaa daka defaral ba mu baax mu ñëw rek toog mu ne waaye man itam dañ maa defaral ba mu baax ma ñëw rek noppi kan moo ma defar sama mag ju baax ji Seydina Abdullahi at mi door na leen yee salaat sunu ngëm te delluwaat sargalaat sa tambiyaat alxalima ibnu Amar Seydina ma njoon na ñëwaat mbootum xilaafi gi la jalaat abidullah karmi wayaat alxalima ibnu Amar lii mooy lii ma ma njoon message yu xalifa bu bees bi fi toog na ngeen moom jaayante bi ak moom mooy ne nun de li sa maam doon dégle say bàyyi daan ko digle say mag daan ko dégle ba kii nga xam ne moo daan dundal loolu di Seydina Abdullahi mu ne loolu na ngeen jaayante ne ci ngeen di nekk ak moom ba haaga moodi Habibulaay min nga del si Mamadulaay alxiiba ibn Amar jërëjëf ajjuma ji moo xaw a xat ñu ngi leen di gërëm di leen sant ah ñu jàppale Baye Babacar daan wax rek Baye Babacar gaa yaa ngi weddi ba léegi de lu ne nu ngi koy wax pour weddi yonent ak limaamu mu ne waaye lay lu dañul rekk a doy lu dañul rekk doy kon nag loolu mooy message am yàlla na nu yàlla may ngoon ngi nu dem seq ak Seydina Maam Libaas Laay sunu rakk ju baax ji ñu dem Ngor ba ëllëgee Imam Maxtaar sa ëllëg sa ñu dem cérémonie officielle seq ak Seyna ñu ngi rafet luy kàddoom di nuyu magam ji Seydina bu Bayraan di nuyu njaboot gi yëpp di nuyu mbooleem ko fi teew nuyu sunu gan yi nga xam ne sunuy gan lañu at mu nekk ñu ngeex ñun sëñ daam sëñ Maodo Cissé ñu ngi gërëm képp ko fi teew wasalaamu aleykum wa toog leen toog leen may leen sécurité bi ñu yóbbu sangay tram sëy di xam naa ni ko jox dootu wér di dagaan xam naa ni ko may mu woomal ko defal wedam wedam Rawla Isa ko sama dootul tiit te dootu ragal borom jàmmala waalay waaw fekk du jàq